Euh, te dañu ne rek ay député lañu ñu tudd ñu tax sunu écharpe pour wane ni yéen askan wi de yéen ñu ni woon dem leen ba ñu demee nag fekk nañ fa assemblée boo xam ne feebaru sax dafa ëpp feebaru rek dafa ëpp ndax assemblée boo xam ne ñoom def nañ seen constitution wëlbeuti nañ la bëgg wëlbeuti bañ ko wëlbeuté né nañ jox nañ assemblée katanu sét lan la nguur gi di doxal wante nak ah ñemewuñ dé ñëmé wuñu nguur gi bay xol lu nguur gi doxal ak lu nguur gi doxal ñun daal wokk dox lañ fa dekk lool nak ñun duñ ko nangul kenn kuy wokk sa dox na wokk sa dox mais duñ ko premier ministre bi dafa wacc waru garam parce que depuis juróom-ñaari weer assemblée baa fonctionner té te wu nekk waroon na ñëw ñu wax ak moom waxuma la wax ak moom mais dafa am yeneen question yoo xam ni ñu nga fa ni jonn te kenn waxu ko xale yaa ngi jeex ñu ngi dal ci kaw xale yi kër yëpp boo demee tiitaange lañu nekk xale yi ci seen bopp sax dañoo tiit di yeddante ñu dugal question boo xam ne du question écrite du question orale dañ ne ci saase dafa jamp jampaay bi moo tax ñu tuddee ko question d'actualité ñu teg ko fa nanguwuñ cee woote ñu ngi nekk ci mbedd mi di wax ak garab yi ñun nag ñu ngi leen di xaar assemblée bu ñëwee fa la ñuy fekk monsieur le président ngeen tudd loo xam ne lu doy waar la loo xam dafa jalgati constitution bi dañ ni parrainage ñoom dañoo ne woon dañoo verrouillé ñoom ñoo ne dañoo verrouillé biñ référendum bi bi ñuy verrouillé dañ ni lépp loo xam ne mu ngi jël ci anam yi nga xam ne moom la ñuy tabbi njiitu réew te mbiru parrainage bi dañ koo boole ci anam yi ñuy tabbi njiitu réew ñu ni dañ koo jiire ci anam yi nga xam ne moom moom taxawal nguur gi ñu ni dañ koo jëmale ci màndaa yi nga xam ne moom la président bi war a def mooy ñaari mandat yu tegle yi ñu ni loolu def nañu article alinéa 7 bu article 103 boo xam ne loolu kenn dootu ko laal tifaaxan kenn dootu ko laal araam na tifaaxan kenn dootu ko laal ah waaw bu fekkee ne anam yi ñuy fale njiitu réew mi pare naa ci la bokk kon waratuñ koo laal ñoo ko waxoon comme ñoo ko waxoon nag ñoo koy assumer ñoo ko sombi ñoo koy naan bu lem la ñoo mar bu kané la ñoo situ mais ñun duñ leen may dara te itam li warugar mom la ñuy def tay mo andi xap yi pour war leen ni ñun seen ndaw lañu te duñu noppé nek seen ndaw pour wan leen ni leen yeen sénégalais buñ leen soxla buntu assemblée ñew leen bu leen kenn xoxotal ñun kenn ñoo tital parce que nak ségum ki nga askan wé ko fal mo wara am fit ci kaw ki nga xamni ni benn décret la bo xamni bu ngone mën na dañ amul lu muy menacer ñun laaju ñuko lenn lu tax mu ñuy menacer suñu droit la exercer ak droit doomu adamay parrainage bi nak mom mom la décider ndax ministre ministre am garde des sceaux nee naka jek parrainage baa fi waaw parrainage baa fi parce que dafa am ñaari candidat dafa am candidat bo xamni jëmi bopam la indi ni lay ni cipp bu ñëwee ñu laaj ko fo bok kan mo and ak yow mu andi ay ay signature lolo mësa am ci réew am benen benen candidat bo xamni dafa jóge ci parti parti def congrès koku moy personne moralu parti ba moy représentant moralu parti ba parti ba def congrès joxagn ko ni ki moy sama candidat ah koku nak ay bagage la and ko ken war ko laaj signature buñ ko laajee signature sax wedd nañ wedd nañ police ndax police bee ko enquête moo xool ci yan ameen anam la ñëwee moo ko jox récépissé moo tax muy am parti di tuddoo parti kooku kenn waru ko laaj pare kenn waru ko laaj ay signature loolu fi tëdd nag te kenn mënu koo jalgati loolu lañ bëgg a wëlbati ndax nee na ñooy président bi dafa war a tànn kan lay euh, làng bëreel wante nag dañ ko bëgg a wax ni ko lekk na avance. Thank